asalaamaaleykum yéen mbokk internet yi di safoo di seetaan Yëgle TV yéen a ngi ci seen biir émission seen mode et culture ah tey nag ñu amoon mbégte teew fii ngir tegtal leen ñaari fànn bi ci njëkk bokk na ci astuce bu ama ama am solo boo xamante ne nii cherul benn yoon sama ndey dikk bii di Abi moo leen ko indi tegal leen ko ci taabul bi xam naa ne tey moom dina xumb te dina dagan buñ jógee ci astuce boobu daal di jàll ci ki nga xamante ne nii moo di ci co nekk fële ca marché Dior. ah ñu demoon seeti ko moom tamit mu indi ñu lépp loo xamante ni nii ak xeetu tatouage yu doy waar a doy yu am solo yoo xamante ni nii daal suñu mbokk jigéen ñi buñ ko gisee dinañ kontaan lool ah balaa loolu nag ma jox sama xarit ah, Abi Diallo moom tamit mu daal di nuyoo Abi noo def. maa ngi fi Maguette. bàyyi ci jàmm bu baax maa ngi ci jàmm bu baax. ma bàyyi la nga daal di nuyoo. waaw mbokki leen ko waxee woon rek mode et création moo ñëw fii teewal leen ci seen plateau andi leen astuce boo xamante ni lu yomb la. te tamit astuce bi day dindi li nga xamantene moy perte blanche Pet blanche nak ku ko wax ku ne xamne dafa yeb jigen motax ñu xol gis ne war nañ leen andil ben astuce bo xamantene dina leen moy tundu ko lo ni moy perte blanche tay nak ma andil leen li di citron da ngay jënd sa ben citron rek nga dal di koy dag boko dagge ba pare soxna Maguette nga di jël ko ci ben pot mën na doon sax vert voilà bu ñu paree ci rinçage bi nag danga koy daldi di jël nga sotti ko ci benn bouteille litre ndox euh, boo ko ci daal defee rek màgget voilà nga daal ko ci sotti. nga daal di ko ci sotti. benn citron rek la wax nag jarul muy bari. boo daal sottee sa citron ci biir litre ndox bi nga daal di yëngal. doo ko yëngalee ba nga xamante ne euh, mbir yi daal di jaxasoo. nga daal di nag euh, une nga dem ci toilette bi euh, nga def sa besoin ba pare boo paree nag nga daal di jël bouteille bi. daal di ci jëfandikoo tuuti rek raxas sa kanam incha allah lépp luy perte blanche di nga tàggali ko moom maa la wax lii màgget. Ah, loolu am na solo te man nag bi xamul mu ci gën a neexa ñàkk a cher ndax man moom euh, xaalis moom fu muy génnee lu bari du ma ca sawar euh, naa faj gis nga de ni mu noonu noonu la amee njëriñ macha allah lu ci gën a doy waar tamit mooy. limon bi nii boo ko rincé ba pare jarul nga koy sànni mën nga ko jël jëfandikoo ko maanaam day dindi xet li xotti limon bi day dindi xet boko jele rek nga dal di koy def ci yenn parti nga xamante day am xet inshallah allah tagaliko bepp xet bu bon. mooy yow gëna gënati naa ya de. waaw soxna ma ngi ben ben nga am ci ñaar. li daal. ñoo ko ah, gisandoo am na solo de man ci tromi bi ndekete bëggee na ko nu ne man da xamala la ci xamona ah. na ko ci euh, mbaxal mu toy xet di lekk yaakaar ne maa ca ne. Ah. te am na yeneen yu mën a faj dul loolu. waaw limoo am na yeneen njëriñ am na yeneen yu bare bare incha allah dinañ ci dikkaat ak yéen ci yeneen jotaay. ndekete man limoo bëgg naa ah Abi Diallo macha allah astuce bi am na solo te yaakaar naa ne yéen mbokku jigéen ñi dina leen neex ndaxte ñun moom euh, ku ne ku ne perte blanche rek xam ne ne jigéen ñi daf leen a sonal lool lool lool kon nag yaakaar naa ne lii yomb na lool te nekkul lu cher loo xamante ne nii mën nga ko am sax bu sa yaay ndugg jee ba ñëw nga sàcc ca ndugg ma benn doom rek jël sa biteelu ndox rek daal tee sotti daal di faj sa sa perte blanche yaakaar naa nekk na lu yombul lool te xet nag dafa baaxul dara dara dara ci jigéen wax dëgg yàlla euh, ngay toog ba say taal ak yenn parti yi di am yenn xet yi te nga nekk jigéen te ku ne jigéen war a waaw dafa xew dañoo war a waaw am na solo trop macha allah macha allah am na solo léegi nag bu ko defee bu ñu jógee foofu ñu daal di dem nag kon jubali ci ci co-création ndax ñu ñoo leen ko diggoon te diggee bor la dañ na woon mode et culture te dañ na woon képp kuy def xeetu baax baax ak foo manti nekk dinañ la jëli. wane la ndax suñu téléspectateur mën a kontaan ndax ñun loolu moo ñu tax a jóg nest bi waaw soxna Maguette demoon nañ euh, seeti ki nga xamante ne mooy Tico Création moom tamit andil nañu ay xeetu baax baax macha allah waxtaan nañ ak moom wan nañu tamit lépp luy xeetu tatouage maanaam yu rafet a rafet yoo xamante ni soxal na lool jigéen ñi waaw man la ko création nek fi marché Dior wa place bi mi ngi tuddu ongu Étoile ma and fi ak sama ñaari copain sama dom nday muy Bamba ak Son wa ñu nek fi di def liggéey bu rafet sha allah wa yow ci lan ak lan ngay yëngu ko création. wa ñun dañuy def euh, tatouage dañuy def pose dañuy pose ongul dañuy def crayon make-up bi aussi dañuy def tamit euh, piercing dañuy bëtt quoi piercing bi tay nak mom dañu dañoo ñëw spécialement pour waxtan ci tatouage yow lan moy ndariñu tatouage. wa tatouage dafa nekk loo xamante ne bii ne e, jigéen ñi dañ ko jël té tamit fuddal la quoi xam nga nek na lo xam art la suñu culture la tamit ñoko mom xam nga nit ñi dañ fàtte lool li ñun ñoko mom suñu culture la parce que fuddal la quoi amul ben effet bo xam amna ci bu amone effet lii liggéey bi du nekk loo xam ne kon dinañ ci yàgg te nekk si di ci def ay plus de dix kon xam nga ne bu nekkoon loo am effet tey du agsi fii loolu te lu ñu gën a dem rek day gën a ko quoi jeunesse bi ñu bëri ñu ngi ci dugg léegi di ko liggéey nga xam ne moo gën yu bëree bari te nekk na métier boo xam ne ñu bëri dañ ko xeeb te macha allah ñi si nekk ñu ngi sant yàlla baax a baax amuñu dara loo xam ne ñu ngi ko ciy rëccu. mosoo defaral nit tatouage tamit mu ci lu ko non non non non mosuma defaral nit mu am ci benn euh, jafe-jafe mësuma koo def wax dëgg yàlla waaw maa ngi sant yàlla baax baax ñi ma yàlla booleel ñëpp moom ñu ngi kontaan ci li ma leen liggéeyal daal ma comme comme ñu fi fekk rek li ñu la wax noonu loolu moo si am. waaye tatouage ku ne xam na ne am na conséquence léegi-léegi nit ki def ko yaramam am ay picc yooyu noonu. waa def déggoon nañ ko nag mais ba tey ñun mosuma ko gis mais déggoon naa ko fi aussi gis naa ko ci internet bi xam nga mais tamit ñun loo xam ne man mosuma fekkee foo xam ne gis client mu def ko te man ma def ci métier bi plus de ay huit ans neuf ans te mosuma ko gis kon xam nga su ma koy dégg tamit man moom li ma nekkoon dem ba nekk ci tey te mosuma ci liggéeyal benn client mu am effet kon ci laay gën a continuer quoi di ci sant yàlla. ba tey tamit ñu ngi waat fii ba tey ci Ciko création rek duñ ko bàyyi benn yoon ndax ñoo leen waxoon lépp luy taaral jigéen dañ ciy dox ñëw fekk fi benn daa moom mu def jongama lool ñu bëggoon ko laaj lan moo tax moom mu choisir tatouage. waaw ah, fay naa sant bi naka la. madame Mbaye. madame Mbaye la moo tax nga tànn di def tatouage. Ah, parce que dafa bokk ci taaral jigéen comme ni nga ko waxee rek jigéen lu mu def pour yokk taaram araamul. Euh, ndax madame Mbaye mas nga cee jànkonteel yenn risque. Ah, mësuma ko jànkonteel franchement depuis des années maa ngi koy def te fii rek laa koy defee aussi. ba nga ko dalee def yàgg na. torop waaw. Euh, te sa jëkkër bëgg na ko lool. moo ko neex moom yii la bëgg. même bu dul événement ak événement yëpp danga koy def. surtout man su amee événement rek wala ma am xew comme ni dama am xew dan ma may njëkkee moo tax ma ñëw def mais budul dul yooyu du ma ko def. Euh, madame bay ndax d'accord nga ci ñenn ñi def tatouage yenn intime yi yenn euh, parties yi nga xamante ne intime la ndax d'accord nga ci ñuy def tatouage yooyu. ah je ne sais pas peut-être xëy dañu am lu tax ñu def ko ñoom mais man de franchement parler du ma ko def. déet bëgguma ko aussi hein. ah parce que loo xam ne tey jii lii xam nga da ngay raxas mu deñ mais loolu c'est pour la vie boo amul yenn moyens pour génn Sénégal pour nga dindi ko day compliqué. nga màgg nag sa dom gis ko sa yaram je pense que rafetul de. mbokki internet yi ba léegi yéen ngi sen plateau mode et culture ñi dalal tamit ben soxna bo xamantene ñi ko fekk fi ci tiko Création ñi diko laaj mom lan moko andi fi soxna si nga def. baye fi tur bi nakal la. Daba Ndiaye. lan mo la andi fi tay ci place bi. tay dama ñew rek pour defaru crayon pose def bu mu bax rek xam nga rek affaire jigéen da ngay def tatouage. wa moo tax ngay def tatouage. mais pour yokku taar bi daal yokku taar bi rek moo tax ma koy def. ndax tamit tatouage mu soo koo def mu defal la benn conséquence wala li ni mel. man sama wee rek laay tatoué mais duma ma def yeneen sama wee yi rek wee yi rek laay tatoué mais du ma def leneen. ñu ngi lay jaajëfal. merci. mbokk yee xarit yi nag élément bi ñoo ko gisandoo waxtaan nañ ak ko Création wax nañu lépp ci lu nekk ci lépp lu nekk ci tatouage waa ñi ngi sant nag di ko gërëm ci jotaay bi ñu may ndax yombul tey nga soxla nit mu toog ma accordé la benn interview ñu koy gërëm di ko sant di rafetlu tamit liggéeyam moom ko Création nekk foofu ci marché Dior. mu ngi noonu kon kenn du moom Tico Création jàpp na ci mbir yi loolu ndaxte moom yaakaar naa ne leen na ko tax a mooy nu jigéen ñi di gën moo ko gën a moo ko moo ko tax a jóg te li ma ci gën a neex mooy crayon bu la ko defalee da ngay yeewu di gën di jongoma ànd ak moom foo sangoo ànd ak moom boo meree sax boo xoolee kenn reetaan nga daal di kontaan ndax sa kanam na muy jongoma ci koo daal kenn du moom kontaan naa ci moom loola ah bu ko defee yéen mbokki internet yi lii lañ leen indiloon ci seen mode et culture yaakaar naa ne neex na leen da saf na leen euh, bu ko defee ni ko comme ni ko Abi waxee sànq ci astus bi yomb na ne nañ koy def ndax ñu mën a tàggoo lii di perte blanche bu ko defee tamit ñuy dem nag def suñuy tatouage ndax ku ci am sa jëkkër ñu mën di kontaan même ku ci amul jëkkër sax sa waxaare ji mën di kontaan kontaan nañ bu baax teewoon fi tey indi leen lii euh, ci seen émission mode et culture di leen jox dig daje ba beneen yoon. waa ñu ngi leen di jox dig daje incha allah ba beneen yoon ci beneen numéro mode et culture jàppale na nag mode et culture yéen rek yéen ko tax a jóg incha allah dana ñëw ak yéen ci yeneen astuce yu gën a doy waar.